walum jafe jafe-jafe àdduna yi yi gaar doomi adama ba nga xamné nim wara mu war a jotee wërsëgam du ko jotee waaw ma indi len ci lo xamante nek secret bu yémé yémé da bo xamné euh ma sha allah mu ngi nek ci suratu tini ana maanaam wa tini wa zaytun wa turi sinniina wa azal baladi amin laqad khana xaana insaan fi ahsani taqwimin summa wa asfala safilina إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بدين الله صلى الله بأحكم الحاكمين waaye nag tey jii moom boo ko doon liggéey da nga koy bind cent onze fois nga koy binde waaye dafa am noo koy bindee lépp lu mu fekk sa yaram bi ba mu da koy raxas ba mu set wecc moo xam cat la moo xam def-def la ak lu mu mën a doon rek da koy raxas ba mu set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 فما يكذبك ممنون غير أجرم فلهم صالحات وعاملوا آمنوا إلا الذين سافلين نقولك كي تفصل نون لك كي تبلانت تفصل يكون نون متفصل الله بتي رحيم الرحمن الله بسمك يبدأ يجود mu nekk liggéey boo xam ne dafay laaj maanaam nga concentré wu bu baax ndaxte nekkul lu yomb lu yomb moom amul fenn waaye nag yitte yi moom ci la nit ñi rawante ku la ëpp yitte rek moo la gën a mën a jot càkkutéefam waaw nekkul lu yomb léegi boo ko bindee 111 ba pare nga daal di ko tëj rek ak allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman yaa rabbal alamin fa yakun boo paree rek bu ko defee nga daal di ut lii ma lay bëgg a wax nii bii nag nit ñi dañ koo xamu ñu bëri xamuñ ko moo tax ma indi ko wane ko pecc 5000 la moom ngay ut bu ko defee nga ut li nga xamante ni moo di jaaru xaalis ak pontu ak jaasi ak paaka ak caabi caabi bi nag boo koy ut na nekk caabi boo xamante ni caabi bu bees la mu nekk ñaari caabi yu bees waaw bu nekkul bu bees sax waaye na nekk caabi boo xam ne réerut mu ngi tijji ko tijji mu ngi tëjoo ko tijjeeku bu ko defee nag caabi bi da ngay fexe nga tëju si biir néeg bi bala ngaa utiliser caabi bi da ngay fexe nga tëj sa bopp ci biir néeg bi am ku yor beneen caabi ci biti kooku tijji la bu la kooku tijjee caabi bi mu la tijjee nga jël ko nga boole ko ak pecc seemine beeg yii ma la wax noonu yëpp muy jaaro xaalis beeg pont bi ak jaas beeg bi yëpp nga tàngal ko ba nga xam ne xonq na curum bu ko nga def ko lépp ci biir saafara bi nga ut xeer yii nii nga xamante nii dañ koo jëlee ci teen bu tegu bënn teen boo xam ne dafa tegu bënn dañ koo gas waaye amul ndox nga jël ko moom it nga tàngal ko ba mu tàng xonq cur nga def ko ci biir nga dindi paaka bi ak jaase ji nga bàyyi fa yeneen ya fa des bu ko defee nag nga dang nga daal di ko sangu juróom-ñaari fan lépp lu fekk sa yaram bi da koy raxas ba mu set wecc ala kulli haal ak lu a doon mu mën a doon rek da koy raxas ba mu boo paree da ngay yëg ne da ngay oyof toll feebar sax bu ko fekkee ci yow dafay dañ muy wér dig yaram loolu leen leen indi loon baaxee leen ko képp ko soxla mën ngaa jël joxe naa ko li wacci laahil karim yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh